yow gërëm loo nga yàlla te gërëm loo mbokk yi àdduna wëndal këpp waaw xéewal a ngi nii gu ñu bëri foogul woon waaw fépp fu ngeen mën a nekk ci biti réew rawatina fii ci Brésil Argentine ak li ko wër waaw lépp lu ngeen yittewoo jën ci mbirum oto jàppandi na moo xam nga bëgg a luye wala nga bëgg a jënd yow mi nga xam ne yaay wàcc ngir dem Sénégal waaw tànnal oto bu la neex ci suñuy parking ñu waxaale ba juboo nga di ko fay ndànk-ndànk waaw waaw loolu de xanaa mooy xéewal xéewal kay bépp xeetu marque oto bu ngeen yittewoo am na ci suñuy parking jokkoo leen ak Cheikh Ndiaye jëwriñ nekk fii ci Brésil samp banqaasam ci mboolem biti réew yi moo xam muy Europe Canada États-Unis wala fii ci Brésil ak li ko wër fépp fu ngeen mën a nekk te yittewoo oto ak marque bu mën di doon mën nañ leen koo jaay yéen ñi yóbbu oto Sénégal te bëgg koo dédouaner waaw am nañu suñu ay transitaire yu leen koy génneel bu gaaw di leen ko defal ci njëg yu xéewale su fekkee da ngaa bëgg a dem Sénégal te bëgg a luye oto waaw kenn ku nekk xam na ne fayum taxe metti na ñu defal leen ko dale ko ci ñaari junni kese waaw gën gaa seer trente mille mi ngi aju rek ci oto bi nga bëgg yéen ñi wàcc fii ci aéroport bu Dakar te bëgg oto bu leen jël si yóbbu leen ba ci seeni dëkkuwaay waaw ci gaaw wala sax diirub li ngeen di nekk fii ci Sénégal ngeen bëgg a luye oto ngir dox seeni course ak marque bu mën di doon mën nañ leen koo jaay ñu jukkil leen ci rek lenn ci ay oto RAV4 essence automatique année waaw kilométrage 12000 à 17 francs full option grand écran intérieur lépp di cuir mu nekk essence boîte automatique année à 16 de francs CFA waaw ba ci oto yu jar 4 mille francs ci ay kilométrage mille waaye ay automatique 6 14 kilométrage 100000 ci 11 millions de francs CFA waaw BMW wala Mercedes B180 waaw lépp lu ngeen bëgg am na fii ci ay prix yu xéewale Mitsubishi L200 diesel boîte manuelle année 2009 intérieur lépp di cuir b 7 places muy 4x4 ci millions de francais fa waaw 4x4 boîte automatique di essence wala automatique essence intérieur di cuir mu am caméra recul ak grand écran année 2017 waaw ci njëggu xéewale mbokk yi li duuf ci nag yu xajul ci cin waaye bépp xeetu marque oto bu ngeen yittewoo ak réew bu ngeen mën di nekk jokkoo leen ak Cheikh Ndiaye jëwriñ nekkee fii ci Brésil waaw taalibe yépp xam ko rawatina taxawaayam ci kër Serigne Touba 00551 196 759 50 20 fii ci Brésil bu dee ca Dakar ngeen woo Pape Diop ci 77 519 04 29 mi ngi nekk ci rond-point Sicap Mbao ci wetu yaa kitaabal di mi anta habibi يا خليلي كل خطب تبي